ñu ngi noonu gars yi nee nañu ñu yéegaat ci caravane bi tuuti parce que dafa xaw a xëcc tuuti. waaw kaa leen ñu caravane baa ngi noonu le président Ousmane Sonko yegsi na Mia sa fan si ñu ngi lay xaar ah. mi ngi noonu. maa ngi lay fay. xanaa sonn. waaw dama mar naan. da <laughs> nga Ousmane Sonko doo toog. te yow jàmbaar nga. da ngay daw doo bàyyi te ñun moom dañoo gaaw. <laughs> noonu baax na maa ngi lay bëggee. kii dama bokk ci bokk passé. Iwam Iwam nga tooñ. sa waay bañ na de. naanaan la waaw léegi ci moom rek laa gisee ay ak affaire yoo xam. jàmbaaru le grand journaliste. nee naa la boo bëggee lire article réew mi ñëwal ci moom. waaw c'est la très grande plume. mais Abdoulaye Diallo na la ci ginnaaw borom yor-yor. yor-yor ah macha allah am na solo. yor-yor yéen a nee. <laughs> revue de presse yaay borom. yaay borom. alhamdulilah de presse yéen a ko moom. tey ah, mën nga ko. bisimilah. déedéet waajul baat bi nag waajul baat bi. ah am na solo am am moom. moo defee le président Sonko. c'est mu dëkk. bi ñu ngi Kidira. mu nekk ci frontière u Sénégal pratiquement ak Mali. nekk dëkk bu bëri ay enjeux ci yi. ndax dëkk yi li ñuy faral di wax mooy ñoom dañuy voté selon ki nga xam ne moo leen gane si ñoom dañoo bëgg ku leen gane si moo tax c'est très réfléchi muy stratégie bu baax pour le président Ousmane. ñoom dañ fiy dañu fi ñëw waaye boo xoolee ñun gis nañ image yi y a pas photo bokkul ni ñu génnalee président Ousmane Sonko génnal luñ ko noonu daal lañ si gis waaw. man maa ngi xaar di góor man ma wàccal rek ma wàcc. Euh, noonu baax na. <laughs> waa góor loo gis. mais loo gis. Aydara Chérif a ngi nii chéri Adama dégg nga dàq nañ ma mba eh, mba xale yi nee nañ nga wàcc nee nañ sa caméraman bëgg na kilim <laughs> nee nañ nee nañ bëgg na kilim ata wàccal mbia à ok yëf yaa ngi noonu mi ngi noonu le président Ousmane Sonko yegsi na fii ci diwaanu le président Ousmane Sonko ngi noonu su ko defee jamono bi rang yi jub na maa ngi seen Déthié Fall maa ngi seen Pros yegsi na le président Ousmane Sonko yegsi na jamono bi ci Kidira maa ngi seen le président Déthié Fall mi ngi talal loxo waa 2A TV la chaîne du peuple moom fu mu ñu seen rek tàllal loxo ndax euh, moom euh, xaritu Ahmed Aïdara la su ko defee procès ngi noonu di ñëw Ousmane Sonko ngi noonu ci biir Kidira Ousmane Sonko génn na Ibrahima Ousmane Sonko génn na ndeysaan procès génn na procès génn na ndeysaan dafa neex a bëgg procès génn na Brosse génn na Ousmane président Sonko président Sonko Sonko Kidira lay toj jamono bi. bilaay Kidira ngi toj Sokh yaa fi ne. jamono bi Kidira ngay toj di ko. jamono bi Kidira ngay toj di ko. xale yaa ngi yuxu Sonko Sonko. xale yaa ngi xatira Sonko yegg si na ndeysaan Gora Kidira ngay xar jamono bi Kidira ngay xar Ibrahima Kidira ngay xar jamono bi Kidira ngay xar jamono bi Gadiago Gora Kidira ngay toj jamono bi Kidira kenn mu dul tee sa bopp nabi kidiraane xar kidiraane xar Ousmane Sonko lakk na bi ndeysaan paayaane xadaraayu kilifa yi ñun Sonko la ñu bëgg ñun ba jóg na roy moto ba jóg na gaay kenn mu dul tee sa bopp gaay kenn mu dul tee sa bopp Ousmane Sonko ñëw na ba toll ak man à deux mètres Ousmane Sonko sécurité baa ngay liggéey liggéey bu am solo Ousmane Sonko l'incontournable Déthié Fall Malick Sène Azura ma nga tee drapeau bi ndeysaan la sécurité ña ngay liggéey liggéey bu mucc ayib Ousmane Sonko dëkk bi xar na maa seen ñoom Serigne ña ngay liggéey liggéey bu rëy Ousmane laf jot mooy wax noonu laf jot mooy wax noonu Ibrahima laf cat mooy wax noonu jamono bi Doza TV la chaîne du peuple Ousmane Sonko tey calendrier bi dafa chargé waaye xam naa dina ko gérer ñu xool yéeg beeg wàcc bi yéeg bi xool yéeg beeg wàcc bi ndeysaan laal laal Ousmane Sonko ngay tëj dëkk bi jamono bi le président Sonko xam xam nga day am poids yoo xam ne dañuy ci kaw ba affaire xam naa du ni fii suba dinañ joxe doon utaat beneen oto parce que bi gars yi il faut ñu gën a gérer kaaraange gi ci kaw oto Ousmane Sonko ndax bëggul mu mer responsable la ndeysaan ne la ko yëgal amul problème Ousmane Sonko xam na ñëpp pro gi mu may ree oh oh retaan na nañu. ah bañ a gis naa ko mu lay ree oh oh Ousmane xamee nañu ñun ñaar ma ngay retaan waa 2A TV. xam na ni Ahmed Aidara jàmbaar la ndeysaan sécurité bi ñu ngay gérer di jaayanti Malick Gakou tanal ak jàmm merci beaucoup Déthié Fall ndeysaan jamono bi dëkk ba xale ya jóg nañu xale yaa ngay cëppi cëppi c'est beau ça maa ngay cappi cappi ndeysaan mbooloo maa ngay cappi cappi ndeysaan mbooloo maa ngay cappi cappi mbooloo maa ngay cappi cappi jamono bi Déthié Fall ngay yëngal jamono bi Déthié Fall ngay yëngal ndeysaan Sonko man doo ma rey laf ca ta ngay yëngal beneen côté bi Azura ngay yëngal le président Ousmane Sonko ma nga yëngal jamono bi 2A TV la chaîne du peuple Ousmane Sonko ma nga yëngal waaw moo ngoog de fu mu jàll bàyyi fay trace comme d'habitude moo ngi mais mooy borom dëkk bi mais est-ce que Ousmane amul ngëm cas daal koo xamul lu layam juree dee ko seetaan rek dafa mel ni woon gars yi ndombo am na paa bu jël paa bu na ko paa bi xol bi sedd na paa bi nuyu na Ousmane xol bi sedd na ndeysaan directeur campagne boo koy indi directeur campagne boo koy indi. jox nga lettre bi koo xam ne jox na koo xam ne du fayee lettre Sonko du fayee lettre. ah. mi nana taa colbe Allah jarama nelaɗo Allah jarama yo Allah wallu Ousmane Sonko il est honnête il est droit Dieu merci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim aouzu billahi mina sheytani rajim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 amin Baba yow. ñu tàmbali waxtaan bi. Baba yow ñaanal nañu. ak le candidat mu présenté nga nuyu na ki nga xam ne. mooy Ousmane Sonko. ba pare jël discours. ndeysaan la caravane de l'espoir la caravane du changement est arrivée aujourd'hui à Kidira ndeysaan mbokk yi maa ngi leen di masawu baax baax baax les inondations ont détruit beaucoup de récoltes et ils ont investi des millions parfois par tête ñu dem ci ay banque lépp xaalis béykat yi ndox mi dugg ci taw bi yàq kaani bi yàq ndogalu yàlla la nag mais le premier ministre bu demee mu waxtaan le président Bassirou Diomaye parce que ay banque la ñu te tool bu ñu yàqoo bu ñu ko mën a rembourser monsieur le premier ministre boo fi génnee à deux kilomètres la route nationale fii ba trois cent ou bien tout au moins deux cent cinquante bu ñuy wax Sonkunku ay piste kese la route est impraticable boo eggee fii à 7 kilomètres déjà il y a le pont de Diala qui est toujours inondé et obligé ñu defaral leen benn boo xam ne ça fait longtemps ça fait des années mais bëgg nañu bëgg nañu tey ñu utal ñu pont bu baax à Diala Lali et partout même en face de Toumoura pour faciliter la circulation. Monsieur le Premier ministre, démb ci guddi wax na ko le département de Bakel la région de Tambacounda ou alors le pôle sud c'est le pôle le plus riche te yaakaar naa richesse bu ëpp fii la nekk ci département de Bakel am na manganèse am na fer am na or am na ay suuf yu baax il alors mbokk yi je crois que bu ñu amee possibilité nga defaral leen ay piste de production pour favoriser les investissements vraiment dinañu arranger trop franchement fii ba Sounkounkou ñu defaral leen ay piste de production dans le Gadaga il y a des villes de plus de 10 000 habitants mais qui sont liées par de très mauvaises routes de Bema à Badou de Diabou ou bien de Bakel à Bandé amul yoon amul fooy jaar ay dëkk yu am plus de dix mille habitants ñooy toppante kon nag ñu ñaan parce yaakaar nañ ne patriotisme bi la boobu moo tax ba am nañu yaakaar ci am nañu yaqin ne incha allah di ñuy dimbali ci loolu. doléances yi bari nañu la pression pour me dire que daa gàttal on a l'occasion, si, si je gagne, d'en reparler à l'Assemblée. boo leen buggee boo leen buggee ma représenté leen ci lii des ci doléance yi mbokk yi votez la bonne carte votez pour la coalition PASTEF le 17 novembre incha allah ñu def 99 virgule 99 pour cent maa ngi leen di sant bu jërëjëf comme ni ngeen ko xamee. dafa am ñu bare ñu ñuy xaar te incha allah bëgg nañu yegg ba Wuro Sogi wante mobilisation bi ñu mel adduna bi yëpp teg ci seen bët mënuñu woon bañ a jaar fii président Ousmane nemmeeku ak yéen et vraiment on est extrêmement fiers de cette mobilisation kon sans plus tarder DJ introduit le président Ousmane Sonko. association d'équipe